allahu akbar xam nga dama ñëw sama jabar ne da eh, bàyyi di def feebar rek. Hmm. bi talala rek. allahu akbar allahu akbar. na moom moo ko def ma ne ko yow di nga def xamuloo ko. ah kilifa gi yow bu la dara jot yow moom toogal si ba si kanam a kanam nga wétalu ñu lool. amiin amiin lool lool lool parce que ñun nous les acteurs culturels de Rufisque xam nañ vraiment sa sa sa sa njëriñ. je ne parle plus je ne de ça de mais au niveau national comme au niveau international. wallaay euh, donc daal vraiment yal na la fi yàlla bàyyi suñu kanam lool lool lool may la wér gu yaram bu sax dàkk dàkk dàkk dàkk dàkk dàkk bàyyi yow bu la dara jot bu la dara jot wax fa dëgg saa dama ko dégg rek dama tiit wallaay azim amiin wallaay azim waaw mais nag waaw yàlla bu baax a baax sant yàlla bu baax ban sant bu baax mu ne sama waa kër sama mbokk ñëpp a mu ne sant yàlla yàlla bu baax a baax a baax yàlla yàlla na la fi yàlla bàyyi ba si kanam a kanam a kanam a kanam merci beaucoup merci jërëjëf allez merci beaucoup Merci.